Famara Niassy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Mbemba Dramé. journaliste nga itam di xeltu ci wàllum politique li jëm ci étape contrôle parrainage yi boucler nañ ko yow ban lecture ngay def ci processus bi nga xam ni enclenché nañ ko. mais li ñu mën a jàpp ci euh, li ñuy gis ni nii mooy pëccëxoo moo la gën a niiroo. parce que mënoo dem ci dëkk boo xamante ne élection yàgg na fi am mais ñu dem ba à un moment. ñu yaakaaroon ni leçon yu ñu waroon a tiré ci parrainage deux mille dix neuf par euh, euh, leçon yooyu vraiment kenn tiré ko parce que bu ñu demee bu ci ay parrainage ñu gis loo xamante ne nit boo xamante ne wote na euh, deux mille comment dirais-je vingt ci législative yi ñëw ñu ne ko kooku bokkul ci comment dirais-je nekkul ci fichier bi yaakaar na loolu dafa dafa dafa jéggi dayoo de telle sorte que homme politique yi ngay gis nii nii. tey euh, ay nit yoo xamante ne ñu ne ay technocrate la ñu ay euh, euh, entrepreneur ñoom ñoo njëkk a wane seen bopp wane seen bopp de telle sorte que ñoom dañoo jàll premier tour li ñuy wax premier tour deuxième tour de telle sorte que loolu mënul bett kenn bettul kenn parce que système bi ñu teg fii nii nii moo waral ñooñu ñu yaakaar ne ñoom déjà dañoo génn mais ci ginnaaw da ngay gis nii Euh, ay kàngam ñoo xamante ne dañoo jàppoon ne ñoom mënuñu am problème ñu ngi am yenn problème yoo xamante ne yu yu sew a sew de telle sorte que euh, gis nañu ni loxo nguur gi mu ngi fii parce que koo xamante ne yaa ngi yoon ci biir nguur gis nañu ni ñooñu dañoo am problème par exemple pour jàll parrainage ñoo ñoo ñu bëri ñoo xamante ne dañu jàpp ni seen diggante ak nguur gi euh, demeewul noonu ñooñu ñu ngi gën a am problème de telle sorte que euh, sénégalais yi ñoom ñoo buggul profe euh, euh, ay professionnels ay ay ay politiciens professionnels politicien professionnel mooy koo xamante ne bu demee ba politique jib rek moom mu ne am naa solution pour régler seen seen situation alors que sénégalais yi dañoo bëgg koo xamante ne trois cent soixante cinq jours sur trois cent soixante cinq mu ñu gis ko muy wax ci mbirum sénégalais yi. de telle sorte que tey élection bi fu ñuy jëm ni yaakaar na ne dina métti loolu parce que leerul setul ci bopp kenn ci xelu kenn et loolu homme politique yi ñoo war taxaw pour euh, vraiment jéem ko régler. Famara Niassy gis nañ ni ay candidats yu bari dañ leen recalé li nu mel nag mën nañ ci nemmeeku ay ancien premier ministre ay euh, ancien ministre sax yow naka nga jàngatee situation bi nu mel. jàngat bi ñu mën a jàpp euh, bi mu mën a def ci yu mel noonu mooy boo boo nekkee ci nguur taxul nga nekk koo xamante ne sénégalais yi dañ laa naw. Euh, taxul nga mm, nekk koo xamante ne euh, sénégalais dañuy jàpp ni mun nga leen diriger parce que ministre mbirum nomination la président la ñu fal mu gis kenn ci moom mu wolu ko jox ko mais li gën a fës mooy boo nekkee ministre da ngay moytu di euh, duggu ci yenn yi c'est-à-dire que yow da ngay ne politique chef de l'état moo fi nekk c'est-à-dire que même ce discours sax dañuy dëgg dañuy dëgg souvent ñuy ne selon la vision du chef de l'état ci gis-gisu euh, njiitu réew mi donc yow amoo euh, gis-gis jékki-jékki rek nga ne yow da ngay nekk donc yow loolu am nañu ko gis nañu ko depuis Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall kenn ci euh, ministre yi ñemewul génne boppam wala di fësal boppam ci justice bu mu am pour Sénégal lépp man bu nekkoon sax sax xalaat la da ngay ne lii xalaatu chef de l' la parce que boo ko defulee rek. dañ lay jiiñ koo xamante ne yaa ngi par exemple def loo xamante ne naka sudul noonu pour faagaagal par exemple le chef de l'État donc de telle sorte que yow boo demee ba génn ci situation mu mel noonu doo am temps pour dugg dugg ci biir Sénégal wala gox goxaan donc da ngay jël ay représentants te représentants yooyu bu ñu amulee yenn euh, communication yow da ngay yaakaar ne gars yi dañ la xam parce que euh, nekkoon nga fi euh, ministre mais malheureusement sénégalais du loolu la ñu soxla donc gis nañu ni ay opérateurs économique ay ay entrepreneur ñoom euh, at bi yëpp certainement ñu ngi def loo xamante ne gën nañu jege population yi donc loolu moo moo indi différence bi nii ni tey ñuy wax ak par exemple euh, Anta Babacar Ngom génn léegi léegi mu am lii xëy na moom dafa def liggéey boo xamante ne économiquement euh, arrangé na ko. de telle sorte que ku mel ni euh, Souleymane Ndéné Ndiaye kenn musu ko gis yenn euh, dëkk yi dafa nekkoon ci koom jékki-jékki mu ne moom day nekk candidat donc loolu il faut que ñu analyser ko ci euh, paramètres yu mel noonu nekk premier ministre di chaque discours boo def rek discours boo def nga ne gis-gis chef de l'état bi nekk fii wala njiitu réew bi nekk fii loolu taxul nga nekk euh, koo xamante ne sénégalais yi dañ ko dañu laa soxla je pense que loolu moo nekkoon euh, faute bu euh, premier ministre yu bëri defoon de tell sorte que dañoo jàpp ni am nañu notoriété mais bu ñu eggee ci biir ñu xam ni du loolu la sénégalais soxla. ci geneen wàll gi itam am na ñi nga xam ni tey jàll nañ lu war a doon seen taxawaay euh, ci li nga xam ne itam moom moo jëm ci élection bi wax nga ko ay docteur Rose Wardini ñoom Pape Djibril Fall ainsi de suite ñoom jàll nañ ci étape parenage bi léegi li ñu la laaj mooy candidat yi nga xam ni recalé nañ leen lan moo war a nekk seen sor ëllëg. sor bi ñu mën a jàpp mooy dina am beneen euh, reconfiguration mooy dinañu tëggaat encore famille politique yi mooy coalition yi parti indépendant yi. yeneen ni ñoo xamante ne démb sax seen euh, gis-gis dafa wute de telle sorte que le 20 janvier su ñuy wax ni diw mooy président diw mooy candidat diw mooy candidat mooy liste définitive ñi war a dem euh, par exemple euh, dagan baat sénégalais yi hmm. di nga gis ay mouvement c'est-à-dire que Benno Bokk Yaakaar dina am ay mouvement vers l'opposition nga gis ñoo xamante ne dañoo neutre ñoo xamante ne Euh, ñu ngi ci digg bi euh, mooy ñuy wax ni les centristes foog faruñu fii faruñu fee ñooñu tamit di def ay mouvement de telle sorte que dina dem ba sénégalais yi sax ñoom ci seen bopp dinañu jaaxle mais loolu warul jaaxal kenn parce que mbirum politique nekk na loo xamante ne dafa mel ni ndox la quoi ndox bi boo demee ba nga laal ndox bi rek da ngay gis bi di bouger di dem ci ci ci recoins yi mm-hmm. de telle sorte que tey di nga gis euh, ay ancien premier ministre wala ay nit ñoo xamante ne dañu jàpp ni nguur gi moo tax ba ñoom ñu nekk nekkuñu candidat ñu mere nguur gi de telle sorte que ñu dem mbokk ak koo xamante ne ba ñoo nekkoon ay adversaire loolu il faut sénégalais ñu commencé di ko di di di jàngat par exemple comportement bi mel loolu yow même ba tey euh, ñaanuma ko mais boo demoon par exemple ak koo xamante ne yéen a nekkoon par exemple euh, réew mi FM ngeen am fa ay tension boo leen bokkoon ci beneen euh, euh, par exemple rajo. Hmm. ak kii dina am benn tension boo xamante ne dina nekk wala suspicion boo xamante ne moo nekk seen diggante donc loolu c'est naturel mais li ñu gis ni mooy les anciens premiers ministres la wala ay ministres wala ay nit yoo ne amoon nañu ay ndombol tànk ci biir euh, nguur gi vraiment ñoom ñoo am même gis-gis gis voilà comportement wala ay ay ay ay. ambition que nguur gi nekk fii. ñoom ñi nga xam ni tey jàll nañ Mame Boye Diao euh, Aly Ngouille Ndiaye ay dissident euh, ñi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar ñoom ànduñu woon ci candidature ki nga xam ne moo di Amadou Ba tey jàll nañ ci étape bu parrainage bi ni mel euh, lan moo ci sa jàngat. sama jàngat moo di dafa yomb ñooñu réeroo ñu ak ñii parce ku mel ni Boun Abdallah Dionne bëggoon na nekk candidat Benno Bokk Yaakaar du caagee ne Amadou Ba mooy problème am. Euh, dafa bëggoon a nekk candidat ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye bëggoon na nekk candidat Benno Bokk Yaakaar Mame Boye moom dafa dafa candidaté pour euh, nekk candidat Benno Bokk Yaakaar mais ñu tànn Amadou Ba ci tànn boobu la ñu amoon problème mais du profil Amadou Ba wala amuñu problème ak waa Benno Bokk Yaakaar parce que tey ku mel ni Mame Boye Diao bu nekkoon bu demoon deuxième tour waa Benno Bokk Yaakaar préfère ñu jël ba ñu dem soutenir Mame Boye Diao que dem di soutenir par exemple ku mel ni Boubacar Camara bu ñu demoon ak euh, Déthié Fall deuxième tour ku mel ni euh, Mame Boye Diao préfère dem soutenir Amadou Ba que di soutenir euh, Déthié Déthié Fall je pense que ñooñu stratégie politique la mais vraiment réeróo ñu man loolu mooy sama analyse loolu mooy sama gis-gis même bu dee ñu bëri dañuy jàpp ni le fait ma wax lolu dina yàkkal lu bëri ku mel ni am euh, Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye wala euh, Mame Boye Diao parce que mënoo toog ak nit ki ngeen cheminer ngeen nekk même kër ay dix ans nga jékki-jékki ñu ne léegi il faut ñu choisir benn kandida ñu choisir kenn ñu choisir yow mi par exemple Mbemba Dramé man Famara Niasse xamante ne man ak yow ñoo nekkoon même kër ma ne non non non man d'accord ma ak euh, choix bi ñuy def ci Mbemba Dramé ëllëg bu ñu demee ba pëcc ko xam am man je préfère madame soutenir la parce que yow xam naa la donc ñooñu reconfiguration boobu jàpp leen ko tey bu ñu demoon ba deux mille euh, euh, au soir du vingt cinq février mu am deuxième tour ku mel ni Boun Abdallah Dionne dina soutenir Amadou Ba wala Amadou Ba dina soutenir Boun Abdallah Dionne vice versa ñoom ñi nekkoon Benno Bokk Yaakaar yaakaar naa réeroo ñu situation moo am ay intérêt yoo xamante ne dañoo divergent moom kese moo leen boole mais du situation kii idéologie Famara Niassy gis nga critique yi nga xam ni jëmale nañ ko ci conseil constitutionnel daanaka ak li jëm ci wàllum logiciel bi doon contrôler parrainage bi absence su yenn ci ay électeurs ci fichier bi ni mel candidat yu ci bëri yëkkati seen kàddu ndax jàpp nga ni responsabilité ba ca war jël na ko wala itam lan mooy part de responsabilité Sénat DGE ñoom ñi nga xam ni ay organes lañ yi nga xam ni mënuñu génn ci processus électoral bi. waaw li ñuy nemmeeku wala di muy ñëw muy raam di ñëw kenn waxu ci loolu waxuma ko ci français bi mais gis ngeen fii ay sous préfet ay préfet di euh, dugal ay recours pour euh, ay liste yoo xamante ne kii mooy administration nu mu duggee ci politique ba fës si c'est-à-dire que fu mu toll nii administration bi dafa takk rip comme euh, mbër yi nu ñu ko waxee mm-hmm. ma ne tey bu ñu demee ba DG e am comportement boobu ñu gis tey taxawaay Euh, conseil constitutionnel malgré ay interpellation yu euh, Sénat di def yaakaar naa déjà processus bi déjà am na am na am na problème am na problème de telle sorte que bala ñu koy xam il faut ñu dem ba ñu fal kenn koo xamante ne deux mille vingt quatre moo war a nekk euh, président Sénégal dina am ay problème yoo xamante ne moom sax du ko du ko yaakaaree de telle sorte que tey li ñuy gis ni mooy dañu jàppoon ni dialogue national réglé na ay problèmes yu bëri malheureusement lii nii nii ñëw na woon sénégalais yi bu ñu nee dialogue dialogue mënul régler lépp de telle sorte que il faut que ñun ñu xam suñu bopp ñu xam fan la ñu bëgg a yóbbu Sénégal bëgg a yóbbu Sénégal pour mu nekk pays bu développé taxul ay nit di jël ay feem ay njuuj njaaj yaakaar ne loolu mbirum politique moo ko mën a donc tey ndey mbill mi c'est-à-dire tey mooy conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel balaa muy euh, par exemple éliminer nit il faut que mu am benn communication horizontale ak communication verticale communication horizontale boobu mooy képp koo xamante ne candidat la war a xam ci ban levier lañ lay juger kuy dem examen xamoo sa coefficient matière yi yow une ba def nga jàng nga mais chaque fois da nga xam ni français coefficient bi tel la. Mhm. ci lii lañ may jugé. mais bu dee yow xamoo loolu. te euh, conseil constitutionnel. leeralul ci yan base lay éliminer ay doublon externe. Mhm. ay doublon interne. loolu yëpp ay sénégalais dañ koy dëgg nii rek. yaakaar naa loolu déjà dafa am loo xamante ne du leer ci xelu sénégalais yi. de telle sorte que waaw jël nañu at bi yëpp wala ñaar at. Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko de telle sorte que au lieu que ñu wax loo xamante ne moo soxal sénégalais yi mooy développement bi mbirum euh, xëyu ndaw yi mbirum euh, politique bu leer corruption ñu génnee ko fii mooy mauvaise mauvaise gouvernance ñu génnee ko fii parce que mauvaise gouvernance dem na ba euh, laal ci mbirum non transparence par exemple processus électoral bi donc de telle sorte que non transparence bi dinañu coûter cher de telle sorte que ëllëg bu ñu demee ba ñu fal benn président moom soit dina topp li Macky Sall nekkoon di def nii mais ma dina génn ci euh, facilement ci euh, parce que sénégalais yi ñu ngi dem ci élec ak e-, e-, euh, exploitation pétrole malheureusement loolu encore dina indi fii ay problèmes yu rëy rëy rëy Famara Niassy ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci na nga nangoo tontu si sunuy laaj. jërëjëf euh, Mbemba drame maa ngi gërëm bépp auditeur euh, mi FM yow tamit di la gërëm ci liggéey bu rafet bi ngay def. di la sant di la gërëm bu baax baax di fàttali ni yow journaliste nga itam da ngay xeltu ci wàllum politique. ngay xeltu ci wàllum politique. ngay xeltu